ginnaaw bi ñu baale ñëpp ak te mu doon lu dëggu ci ñun ci seen fan wu njëkk ci weeru ramadaan yàlla na yàlla suñu borom may ñu ñu dugg ko ci bismillahi rahmaani rahim ñu génn ci alhamdulillahi rabbil alamin seen chaîne télévision seen kàddu gën a jege askan bi bëgg a dugalante ak yéen ci wàllu diine fexewoon woon ba am conception wu di leen baaxe bés bu nekk benn émission wu bi ñu tuddee yóbbalu koor nga xam ne weeru koor gan la te gan bu ñëw gane si dafay indaale sërica moom tam buy ñibbi dafa war am lu mu yóbbu loolu mooy yóbbalu koor kon gan bu ñëwee gane si la indil la sërica nga teral ko ganale ko lool buy ñibbi daa war a am lu mu nettali ji fa muy dem weeru koor di ganu yàlla yàlla yónni ko ci xeetu lislaam ndee ñoom rek la ko may ndax comme ni ko alxuraan waxe ay xeet daan nañu woor waaye woor bi ñu diggal jullit yi bokkul ak wooru ñooñu ndax ñooñu ñoo jëloon initiative wooral seen bopp ngir yàlla jéggal leen wala ngir yàlla defal leen waaye wooru jullit yàllaa leen ko digal yaa ayyuha allazina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala allazina laalakum tattaquun kon loolu wone na ni julit yi ñoom la yàlla suñu borom digal ñu woor xeet bu mu mën a doon nag daan na woor waaye seen woor ñoo ko jëlaloon seen initiative bu bopp ndax peut-être am na lu leen yàlla defal ñu bëgg gërëm yàlla jël initiative woor ngir gërëm ko wala tooñ nañ yàlla bëgg yàlla jéggal leen ñu jël initiative woor ngir yàlla jéggal leen yonent yàlla musa alayhi salaam daan na waxtaan ak yàlla ci lu bari ndax moom rek la yàlla mayoon lisaanu xaal bi nga xam moom moo doon waxtaan ak yàlla direct sans intermédiaire nii malaaka ni leneen yonent yàlla Moussa toog na bis ne yàlla suñu boroom ndax dinga nga bindati mbindeef bu mel ni man la nga ma defal ndax mbindeef dina ko amati xéewal yëngu ma defal ndax mbindeef dina ko amati am makaama di wax ak yow direct te moonte yonent yàlla Moussa li mu doon waxante waxante ak yàlla alayhi salaam juróom ñaar fukki junni kiiraay duggoon nañ digganteem ak yàlla kiiraay mooy lan miiru lëndëm la boo xam ne boo ko di nga dox cent ans xarnu ngay dox un siècle de marche nga mën a traversé pour pour jéggi miru lëndëm diggante yonent yàlla Moussa ak sunu borom Hazawajalla wa Jalla amoon na soixante dix mille miiru kiiraay te Moussa jegewoon na yàlla lool imaginel nag combien d'années de marche ou bien combien de siècles ou de millénaires de marche la ci doomu aadama léegi yonent yàlla Moussa yàlla ne xeet a ngi ñëw waxuma la nit de ndax kookee moo gën ci lu mu bind xayral ibaadi baabal xayaat yi loolu suñ daa ko wax yónente alayhi salaatu waaye yónente bi la tax mu gën ci lu yàlla yónni yónne sunu yàllaa ko waxal boppam wa daayan ilallah bi iznihi wa siraajan munira ba pare yàlla da ko tànnal xeet bi gën ci xeet yi muy xeetul islaam kuntum xayran umatan urujat linnaas ta'muruna bil ma'ruf kon foofee la yàlla suñu borom sukkandikoo wax yónente yàlla Moussa waxuma la moom yónente bi waaye xeetam bi nga xam ne dina ñëw danaa leen jagleel weer boo xam ne ci biir weer boobu may naa leen ci guddi goo xam ne ca laa wàccee xéewal ak dogal waaye nag wàccee ci téere gi gën ci téere muy sama kat muy alquranu karim shahru ramadan allazina unzila fi alquran hudan linnas bi si tegu mooy yàlla ne ko xeet boobu diggante xëdd ak ndogu amul benn distance bu am sama diggante ak ñoom du am saatir direct dafa mel ni ñoom ñoo teg seen gémmiñ sama nopp bu dee mën ñun mën de mandargañ ko ndax yàlla suñu borom amul nopp comme nun ko amee waaye ci waxin rek pour nit mën a comprendre mu mel ni yow da jël loxo sa gémmiñ teg ko ci noppu yàlla wax yàlla wax mu dégg nee na loolu lislaam julit na koy defal te ñoo ñu bu ñu wooree seen woor man yàlla may tibal sama bopp sama loxo yu tedd yi di leen fay kon yàlla suñu borom loolu lislaam la ko defal xoolal yonte yàlla Moussa la mu amoon ak ñun julit lam ñu defal ngir lan weeru koor lañu yàlla suñu borom maye loolu mi ngi taaru ci biir fukki weer ak ñaari taar bi nga xam ne yonent yàlla yuusu yuusufa taar woon la ko ci doomu yonent yàlla isaaka yi moom moo ci ëppoon gënoon a taaru gënoon a rafet weeru koor boo ko doon méngale ak yeneen weer yi noonu nga koy méngale weeru koor taaru na taaru goo xam ne jekk na jekk goo xam ne ba muy ñëw yërmandeg yàlla moo ci wàccaale ndax ñetti fan par ñetti fan la ko yàlla def fukki fan yu njëkk yi yàlla suñu borom def ñu ci defal rahmatan min allah yërmande yàlla dafay wàcc ci suuf tiim àddina gi di leen defar fukki fan yu digg doomu yi yàlla de cee wàccee ak njéggalam yàlla jéggal na jullit yépp ku ci jéggi fukki fan yu jëkk mu diggante diggante dixième jour ba vingtième jour yàlla jéggal na jéggal na la muy njéggalu suñu borom fukki fan yu mujj yi mooy na nga wóor ni wóor yow boo ko xasee woor yow jullit mucc nga safara mooy muccal jullit ci safara kon sérité bii la ñu weeru koor indil ba pare weeru koor tey boo doon jàngat tey mbindi fi mbind mi ramadan muy tekk ci baatu arab mel ni doomu taal bi naaw maanaam suñuy bàkkaar koor bu ñëwee da koy lakk ni doomu taal ni safara di lakkee maanaam matt ba mu def doom nga ëf doom bi mu dem ci ngelaw li ramadan noonu lay def suñuy bàkkaar bon set wecc su ko defee ramadan buy ñëw ra bi moom mooy rahmatan minallah wala ridwanullah rahmatan min Allah moy yërmande ya rinal waaye mooy mayug suñu borom ñu xamne dañu am mayug yàlla te yàlla suñu borom gërëm leen sant leen kon lolu tawfiq la mim bi mu ñëw doon maxfiratun min Allah ku ci xessa wor am nga ngërëmande gi yàlla yàlla suñu borom gërëm na la jéggel na la am nga tawfiq alif bi mu ñëw nak ulfatullah way way way donc ulfatullah moy manam kaaraange gin am xéewal yi nga xam am nañ am nañ ko ci sunu borom ak lan daamaanatulaa muy kaaraange yi nga xam ne am nañ ko ci suñu borom muy sécurité nga xam ne yàlla suñu borom mooy sécuriser jullit boobu mooy sécuriser umma mooy sécuriser weeru koor nuun bi doon nawalulaa wala ni wala nimatulaa kon muy xéewalu yàlla yu sunu borom bi nga xam ne yàlla suñu borom wàccee na ko ci weeru koor indil ñu ko muy sérité kon weer boobu buy dem ñun yobbal lañ ci am boo xam ne tey jii moom mooy sunu yobbal bi ñuy yóbbaale yóbbal googu nag ñu jële ko ci sëriñ Chouaïb bu Mbàkke ibn Xaadim Rasul ci benn téereem bu mu tuddee euh, euh, téere boo xam ne moom mooy leeru pratique gu lislaam muy xuratul ayni ci xuratul ayni sëñ Chouaïb bu nee nañu bu fekkee ni bëgg nga weeru koor buy dem nga am yóbbal bi nga koy jox maa ngi lay digal fan bu njëkk bi soo wooree ba ngoon bay naafile digal naa la ci guddi gu njëkk gi nga def ci juróom benni rakk

jéggal na la tàmbali benn yóbbala ngoog boo xam ne koor bu koy yóbbu loolu la yóbbu ci yàlla yàlla jéggal na la say bàkkaar laata ngay jóge bërëb bi nga toog di julli ba pare julli boobu mi ngi méngook nga dox junni umra walla nga def junni aj màkk moom lay méngool nee na tam mi ngi méngook ku mel ni ku def junni sarax nga jëmale ko ci ay nit yoo xam ne danoo tawat wala yiitewoo wala feebar nga def sarax jëmale ko ci ñoom suñ soxna bi nee na mi ngi mel ni tam yow mi nga xam ne accompagné nga gunge nga junni néew yoo xam ne dañ leen jullee di leen dem denc di leen den dénk seen borom soo xasee def loolu kon mi ngi mel ni tam ci ci gën neex yow mi nga xam ne jaamu nga yàlla juróom-ñaari juróom-ñaar fukki at soixante-dix ans de pratique yoo xam ne yàlla nangu na ko kon premier condamné bi tey jii bisu tey lii la ñuy dugal ci sunu kondane muy juróom benni rakk yoo xam ne ginnaaw faatiya ñu def ci fukki inna ataynaakal kawsara su ko defee ñu bàyyi ko ci biir condamné bi bu weeru koor di dem yóbbul ñu ko ci sunu borom muy sunu yóbbalu koor bu benn bis bu njëkk bi wasalaamualeykum wa rahmatullah taala wa barakatuhu